internetu Thiès info point com Thiès info TV ñu ngi leen di nuyu foo leen nekk ci àdduna bi rek ni ñu koy faral di defee ak ànd gi ngeen di ànd ak ñun ñu leen di dégtal li nga xam ni moo di xibaar yi ci biir réew mi rawatina nag goxi Thiès yi nga xam ni ñoo fasantikoo ci raison bi. Euh, tey nag boo leen gisee suñu taxawaay ñu ngi fii ci Ndiène Sirax di dëkk boo xam ni digganteem ak Xombol tollu na ci juróom-ñaari kilomètre mu bokk ci arrondissement bu Thiénaba département Thiès. dëkk bi nag tey dañu yeewoo nakar ak tiis ndax euh, buntu kër bi nga xam ne fi la ñu taxaw fas yéene dugg ci biir aw tiis la ñu yeewoo benn jàngalekat bu wuyoo ci turu El Hadj toll ci ñeent fukki at ak ñaar dëkk ci diwaanu Thiès moom nag moo ñëw fii ci dëkk bi di jàngale xaw fi yàgg loolu ginnaaw ba mu jógee Fouta mu daal di xëy nag euh, ñu toog ba ko tey huit jàpp huit heures quarante cinq gis ñu benn mouvement ci moom ñu daal di fëgg-fëgg dara ubbiwut ba ñu dajje bunt ba ñu fekk mu wuy suñu borom. faatu nag ak anam yi mu faatoo xamaguñ ko ndax nag koor bi ginnaaw bi fi sapeur ñëwee jël nañ ko yóbbu ko ci district sanitaire Fiacrocoli bi nekk ci diwaanu Xombol laataa nag ñu koy rawale ca hôpital régional Ahmed Sakhir Ndiéguène ngir def autopsie ba mën a xam anam yi mu faatoo yan anam la waaye liñ ci mën a jàpp rek dinañu jël réaction euh, ku ñuy wax monsieur Samba nekk collègue Euh, moom itam tiis yu marqué ko lool dinañ ko jël ci suñu biir intervention yi ni def waaye itam dinañu jël ñi nga xam ni ñoom la dëkkaloon ci kër gi bu ko defee ñu gën a mën a xam ci information bi waaye jàpp leen rek ni El Hadj Diouf moom jàngalekat bu tollu ci ñeent fukki at ak ñaar faatu na fii ci njéen sirax ci ab néegam bu nekk tiis yu metti euh, kon Malick Sarr ànd na ak euh, Pape Madiabel Wade ñu fas yéene leen ko dégtal ci thiesinfo.com seen site de référence dégtal leen ko ci suñuy seen Thiès Info TV léegi léegi lay doon. waaw moom nag euh, boo ko xooloon bu fekkee ni xam nga nit di nga xam ne yàgg naa tawat daal maanaam waaw mais la ko doon sooxaale nag mais xam naa bii biig nag moom la yàlla ñëw ak dogalam daal. waaw parce que naan na ataaya waxtaan ak gars yi yëpp bëccëg bi yëpp mu ngi dox di dem ak ñëw daal amutoon benn problème xam naa bi mu tëddee nag ci guddi gi dégg naa sax ci fajar gi sax yeewu na yeewu na ba taal lampam jóg quoi. mais xam naa entre six heures et sept daal ci la affaire bi amee waaw ci la affaire bi amee waaw moom sax il n'avait pas l'habitude de fermer sa porte da doon bunt buntu beeg fenêtre bi noonu taal lumière bi man tous les jours bu ma jógoon guddi damay gis buntam mu ubbeeku quoi waaw mais biig moom spécialement dafa tëj buntam waaw dañ koo fekk mu gaañu tëju ci biir waaw. waaw dañoo fekk bunt bi tëju waaw bi ba set jotee. bokk nga ci non man nag nekkuma fi woon damaa demoon Thiès xam nga dama amoon procès foofu quoi waaw problème mu kër laa demoon lijjanti ji. waaw foofu la ma ci yoon en cours de route bi may ñibbisi parce que dama dem ñu ne ma renvoyé nañu audience bi quoi waaw léegi bi may ñibbisi ci suba ci yoon bi ci la ma ngisali Diouf wooye suñu beneen collègue ne ma yëngali xew ma ne ko lan la mu ne ma Diouf moom lañ fekk biir néegam mu gaañu waaw Euh, moom El Hadj la tudd mi ngi am 40 ans moom Thiès nag la jóge ñëw fii moom eh, instituteur la élémentaire il était candidat au CAP aussi waaw pratique waaw jàll na écrit quoi CP la yoroon euh, waaw démb moo nekkoon bisam yi mujj ci classe yi nag ndeysaan parce que démb dégg naa sax xëy na jàngale mais dafa gontaat aussi jàngale waaw xam naa da doon renforcer waaw da doon waaw. Mhm. fi bi dégg naa aux dernières informations ñu ne yóbbu nañ ko au district sanitaire de Khombole mais dañ ko transféré waat à l'hôpital régional de Thiès waaw. pour def ay autopsie waaw pour xam les causes du décès ak yooyu noonu waaw. mais jàpp naa ni. bon mën naa ne nag comme nee naa leen feebar bu mu sooxaale la tamit mënoo ne kenn reyu ko daal xam naa ne waaw mais xam naa ne li ko rey moom c'était visible koi parce que vraiment xam nga nit boo nekkee moom aussi muy xëy di jeex di jeex di jeex di jeex di jeex bañ na la dee mën mënoo ne mort naturel la mën na mën nañ ne peut-être y une petite maladie derrière quoi waaw parce que da doon jeex rek moom da doon jeex. amul benn yoon boo leen toog mu mas la wax feebaram jàmbat la ko wala yow nga. non non non non non non non non non non non non doon nañ ko gis nii rek xam nga tam am na yenn yi nga xam ne c'est personnel quoi waaw bu la ci nit ki dugalul moom waaw mooy loolu quoi te comme ñun ñëpp ay intellectuel lañ ay enseignant lañ de sur quoi am na yenn détails yi nga xam ne bu la ci nit ki dugalul rek daal doo ci mën a dugg daal maanaam waaw waaw tiis wi tiis wi également nekk tiis wu metti ndax boo xoolee fële ca Kaolack ca Njafat mmh. am na ci benn jàngalekat bu jàppanteeg benn waaye ba mu faatu waaw euh, fële ca limaamu laa ñu ngi ñuy wax ab jàngalekat bu ab di menacé mmh. def ay menace de mort mmh. tey ngeen ñëw ci naka tiis suñu borom jël seen bakkan bakkanu kenn ci seeni i collègue waaw euh, waaw metti na nag metti na parce que jàngale da di maanaam liggéey bu noble boo xam ne liggéey boo xam ne kenn mënu ko fay la ci àdduna waaw ba tax na boo ci nekkee daal di nga séntu ci sa bopp leneen lu dul lii daal waaw surtout ki ñu rey noonu kooku peut-être mi ngi doon xaar ñu évoqué wu en ordre chevalier de l'ordre national du lion wala beneen affaire ko mais du par exemple ñu jàppale di la dóor ay gourdin ba nga dee loolu dafa metti tiis la metti nañu trop wax dëgg yàlla waaw moo tax daal ñu ngi incité tam autorité yi pour ñu gën a taxaw njàng mi quoi waaw parce que beaucoup de nos collègues ah. am na ci ñi nga xam ne sax ñu ngi feebar mais fajowuñu waaw yooyu noonu yëpp ñu ngi incité état bi pour ñu jël paramètres yooyu en charge gën a taxawu jàngalekat yi quoi bon mënu ma ne nag du man ni ñàkk moyen la parce que jamono yi passé moom wax dëgg yàlla am na ay avancées significatives ci au niveau des salaires quoi wax dëgg yàlla waaw yokku nañ salaires yi bu baax a baax a baax a baax a baax a baax mais maanaam conditions yi ñuy dundee ci àll bi moo metti moo metti nous sommes permanemment en danger waaw loolu tam dina expliquer yenn moor yi des fois waaw parce que xam nga nga nekk ci àll bi sori sa famille jegewoo kenn tout le temps ngay passer la nuit yow kese dafa metti wax dëgg yàlla doy na waar man mii di wax ak yow sama famille ñu ngi mbuur waaw fii lay nekk tabax nga sa terrasse ba pare mënoo am affectation pour jege sa famille tout le temps yaa ngi ci zinc yeeg yooyu noonu métti na loolu wax dëgg yàlla fii nii fii ñu nekk nii on vit avec des serpents tout ça way yooyu la ñuy dund léeg-léeg ñu dàq benn jaan mu daw fii dugg ci kër géeg yooyu noonu yooyu la dund quoi na parce que enseignant moom boo ko déggee. waaw waaw l' enseignant s' adapte quand même l' waaw on avec et puis vraiment on gère quoi on gère sans problème quoi waaw. waaw ndemtu yàlla si nag maanaam bërki démb bi ma fiy jóge ci guddi mi ngi yor benn facture ndox quoi naan ma ngoom ma ne ko ah mu ne ma gëj nga gis Pa xam nga Pa benn sëriñ la boo xam ne ma mosoon nañ fa daje moom ci póot quoi jotuma ko tontu sax mu ne ma man de boo moytuwul pour facture kii bi ndox bi dinaa ci génnee maanaam sama loxo parce que vraiment gars yi boo leen di laaj ça met du temps avant ñu lay jox affaire yu mel noonu waaw boo moytuwul damay démissionné quoi loolu daal laa mujjee dégg ci moom waaw mi ngi yor nii nag facture ndox facture bi sax maanaam cherul sax parce que ku nekk 400 xaw ma 350 nga waroon joxe ko moom moo def calcul yi ak yëpp waaw maa ngi taxaw moom fii. soxna fii ci la fii fii fi affaire bi xewe laa dëkk faal wallaay naqar bu metti lool waaw man de wax dëgg yàlla damay def saa yu ma yeewoo def nii buntam ndax day bañ mu tardé donc ma yeewu fëgg fëgg bunt bi tijjeekut ma bàyyi noonu dem léegi ma demee marché jënd mburu ba ñëw dugg ci biir monsieur booy ñëw laaj ma mën na ko juuf da fëgg naa ko waaye gisuma bunt bi tijjeeku mun a ma léegi da xaaral mu fëgg na ma bunt bi da koo tëj sax hmm, nan moom nee na da ko doon woo téléphone rek téléphone bi sonné kenn jëlut looloo tax mu jógee primaire ba fi ñëw dab si ko ñi muy jàngandoo ay 7 xam naa kay boobu da naajut wax dëgg yàlla xaw ma xooluma boor waaye boobu waaw ndax booba am na sax ñu jógagut nan nan ngeen dafa ñoddi bunt bi de mukki mi mu daj da ko ñoddi moom mu dajjeeku moom mi góor moo ko ñoddi mu dajjeeku mu gis ko de mu ngi doog a génn wax ma ko man de loolu laa ci am siñ bi de moom nuru wóot nag ku wére di nax daal man ma dara waaye jeexaayam daal moom wanoon na ma ko wére di nax dafa jeexan lool ba di jaaxal ma waaw jeexaay bi moom dëgg yàlla dafa métti woon hmm. day wax dëgg yàlla bi may tëdd dégg naa ko rek muy wax ci néeg ma nekk sama néeg bi reeree ba ñëw waaye léegi waxul dara nag wax dëgg damaa dégg rek muy wax ma nekk sama néeg. man de xam na ko yàgg waaye jàpp ma atee moo tax waaye wax dëgg jàpp ma ko waaye yàgg na fa moom.